ndewoy ndewoy ndewoy seymane ndewoy alaykatim kam mangala yaar jërë ngeen jëf mbokki Sénégal jërë ngeen jëf mbokki àdduna rawatina yéen ñiy suivre seen site bi di Lutte Sénégal TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte kontaante comme ni ñu ko defee chaque jour rek di leen toppal làmb ak li ci biir ma waral tey ñëw fi nga xam ne mooy caaro yi seet si suñu papa di ndaanaan ci làmb di chroniqueur te lu mu wax ci làmb rek ñu dañ koy bàyyi xel muy Père Max nekk ci biir làmb def ci lim ci def mais terewul bi bi bi ayam jeexee génnul làmb mu ngi boot xale yi uf xale yi di leen accompagne di leen jàppale moom lañ seet si nag fas seen waxtaan ak moom ci làmb yi nga xam ne mu suñu kanam ak yi nga xam ne bi ñu ngi koy romanaat ci suuf dañ koy bàyyi mu nuyu nuyu ñuy suivre su ko defee ñu dugg waxtaan bi père maa ngi lay nuyu di la si waaw jërëjëf euh, fils di la kontaane di la fay euh, di santaat yàlla bu baax di julli ci yonentam bu tedd bi di gërëm sunu ñaari waajur di ñaan jàmm ci réew mi di gërëm seen site bi rawatina dembale nga xamante ne nii site la boo xamante ne nii li ma naan guerre day saf mondial boo ko boo leen seetaanee da ngay xam ne ñii dañuy dund làmb te nag ku bokk ci gétt gi ma naan ci meew mi moo tax euh, bu ngeen ma yittewoo rek même bu jot amul am na ci loo xam ne duma ko mën a du ko mën a bañ boo ko mën a gàntal ndax dañoo bokk feebar waaw làmb mooy suñu feebar <laughs> loolu la yàlla dogal <laughs> ye way suñu febar eh, di contane nak ci eh, tontu say laaj ma ngi lay fils euh, euh mais père buñu dé présenter touti père max ci bir lamb ndax mëna yomb tuuti won wa yomb gi moy dundu lamb rek dundu lamb comme ñep danaka pap kan ak eh, ñom pa fal timeli ko li fay ñom la néwon sen képar romb leen ñuy euh ñoo gëna tax ma bëgg lamb ma ci ay ñu ma tuuti nag may ànd ak ñoom ñoom Mansour Diop Maas Ndiaye Badlen Sikki As Mbaye génération boobu euh, ñoom Mbaye Guèye bëri nañu dégool Mansour Diop euh, ma ne ci seen keppaar di ànd ak ñoom ba mu yàgg ma commencé topp làmb nag waaw. boo dee fàttaliku tuuti làmb bi ak làmb bi tey différence bi ak changement bi ak xale yi. Euh, différence bi mooy booba ku bëre mbër la léegi nag regg bëre daa am waaw regg bëre <laughs> mais boobu ku bëre mbër la. ndax booba ku daanu ne dama juum ndax ay sportif la ñu woon mais léegi ku daan wit ku la daan kama xeex ak borom blouson baak moo tax écurie yi toj euh, foofu la ñu utee bu njëkk ba sport la ñu bëgg ko muy passion léegi nag am na coo xamante tool nga ni ñëpp rek ñooy ne demal bëri ci moo tax sportivité gi dafa wàññeeku dafa wàññeeku mais bu njëkk ba da xam ne da ngeen di xëccoo wolof ne làmb wolof nag dafa bëri xam-xam ci làmb làmb mën ngaa daj mën ngaa bañ a daj hmm. beneen kàddu gi mu ne renu ñaam la kenn xamul fu muy demee waaw moo waral booba ñoom ngor googu la ñuy demee moo tax ku daanu ne damaa juum léegi ñii ku daanu yaa ngi wit ku la daan léeg nga jiiñ mbër ne moo la xeex mbër ma dëkk ci daanu ku xamoon lu la luy daan nit nga defal ko sa bopp ba kenn du la daan yàlla noppi na film bi rek la ñuy dawal film bi rek la ñuy dawal li war a xew suba même combat yi taxaw même bu saison bi tëjee le 15 août même yeneen programme yi ñu dëgmal suñu kanam sax la ca war a xew suñu borom sottal na ko da ngay dem di witi rek ndax ay jaam yu xeebu lañu li xew suba xamuñu ko dañ koy bàyyi borom suba mais yàllaa yor yépp da ay yalla muy lu am solo message bu am solo la mais ñi nga euh, jëm ci journée bu am solo muy le 7 août digënté Balla ak Gris Bordeaux bari won nañ 31 mars 2018 ki di Balla am ndam ci kaw Gris Bordeaux par décision arbitre amal nañ revanche naka nga jàngatee seen état de forme ñoom ñaar. waa état bi gis naa ne. Euh, forme yan daan gis ci ñoom ay at ci ginnaaw gis nañ ne wanewuñ ko gisuma ko mais ak seen différence dage benn forme bi ngay am ci bi ngay débuté munoo koo jeexalaale mais loolu bokkut ak doole mais boo xoolee seen état de forme da ngay gis ne daan nañ gën a taxaw physiquement mais loolu du dara euh, li am solo mooy rek liggéey la am doole am force intérieure ba mën a gérer combat bi foofu ngay àtte nit bu fekkee ñi leen di encadré gis nañu ñu ngi takk ngemb cinq heures bu timis duñu sonn di contact di xeex di entraîné te duñu sonn mu leer leen ne dinañ mën a tenir combat bi ba duñu sonn rek le jour ji ak périence bi ñu def ci làmb ku ci ne mën ngaa def différence. waaw waaw boo xoolee kii Gris Bordeaux amagul 46 tamit la même chose euh, ndax tamit euh, comme li gars yi di wax ñu ne champion yi ténor yi bu eggee ci kaw rek. li war tamit ci entraînement dëgg duñ ko defate moo tax bi ñu sumee ko ku ci nekk xaw a xeeb seen état. waa loolu feeñ na ndax Tyson dem na ba ba jeexal âge de retraite wala li ko desee woon bariwul te ba léegi physiquement dafa athlète kon euh, état bi ñu bi ñu daan gis ñenn ñi nag dañu dem boo àggee ci benn niveau yi bu fekkee lépp yomb na euh, coono bi ñu war a daj léeg duñ ko daj parce que bu fekkee da nga daan rayante ji li ñu naan tout début est difficile mais nag boo demee ba mbir mi yomb la. boo amul benn courage bi rek xëy na condition physique ba nga war am doo ko am mais xam nga booy débuté di witi dara nga xam ne da ngay na ji yaa ngi xalaat bu ëllëgee tekki tey nag macha allah ni xew ci jamono nit ñi bëgg ko am nga ko am nga kër gu baax am oto bu baax ami tera nga am say am ay say soxla man koo faj soo amul benn courage bi rek war ngaa mën a yor benn état de benn état de forme bu mais bu ñu xoolee ñi leen bëgg te yàlla tax mbër mi moomul boppam mbër mi moomul boppam da ngay bëri am ñoo xam ne du ñu añ duñu reer di sonn ñeneen ji werante da ngay añ am na ñoo xam ne dañuy dañuy altine ji ñi ngi xalaat bu buñ paree fu ñuy dem ñooñu boo leen sóoree bul seet li nga am reyanteel fii ak yaa ngi ci làmb ji lépp lu lay may doole di la may kon witi ko soo tekkee sa làmb nag boo tekkee sa ngemb nga defi leneen mais luxe warul tax nga ngay relâché ndax soo sóoral ñi la bëgg te yàlla tax sóor ñi nga xamante ne it bëgguñu la bëgg nga am defet ñooñu la war nañ la yokk jom boo daan def nga yokk soo demee ba tekki nag su ko defee ngay def maintien mais fii ak yaa ngi ci terrain bi foog nga entraîné pour mën a compétir loolu mooy li jaadu parce que du yow dong du yow dong yaay takk ngem bi bëre mais dafa am ñu ne ci sa ginnaaw bëgg la te yàlla rek tax waaw. jar nañu bàyyi xel. moo war a tax looy def nga fo respecté ko. waaw ñoo jàngatee revanche ñoom ñaar bëre woon nañ Balla am ndam ci kawam ak ni combat bi jeexee muy combat bu intéressant ndax euh, revanche bi tax mu am solo mooy mhm. euh, ñoom ñaar ñëpp ko ci ne da ngaa soxla combat bi. non seulement ga Balla mo gagner par décision arbitrale mais giri kérok démérité wul ba bim démé ñé dañu ñim ando nak dañu contane ci mom mais xamal na ko ne ko dama la xamutone mais buñ waté dama lay daan ba giñ ci tay lamb boole wat mais Balla gay buy ñëw du sóor ne maa day sor fi mu joggé a ah, Bombardier mi mu joggé mu daanu ca ay supporteram tok di joy ba pare am luñ ko sas ne ko ndox du bàyyi yoonam jibbu buñ la xamee waroo ko wat dañ laa xamoon nga ñëw ci école bi di entraîné ñu ëmb la tey da ngay beru rek maa ngi dem maa ngi dem bitim réew di entraîné mu nangul leen seen proposition boobu ba pare gis nañ ay problème yu bëri ñu ngi bëri mu leen di jàppale financièrement di leen taxawu kon moom day pare pour am ndam téyewaat drapeau bi ngir écuréem ak ngir goxu géejawaay kon moo lay wan ne kon sóorul ne maa daanoon day ñëw pour ndam pour relancer carrière am te beneen kii bi ci ne mooy mu am ay combat ci wetam imaginel bu tegalee ñaari defet war a jëlee Eumeu Sène ak Boy Niang day métti non day métti kon li koy gën a motiver sax mooy mu gañ a Gris Bordeaux euh, mën a waajal Boy Niang wala Eumeu Sène su boobaa dina mayaat espoir ñi nga xamante ne nii ñoo ko bëgg euh, ñu gën a ne ci ginnaawam di ko pousser pour mu jeexal li des ci làmbam ndax la moom làmba ko soxla ndax su bàkkoo mu neex su communiquer mu neex bu bëree mu neex ndaanaan la waaye daal seen dernière yi doy na waar giri nag gis nañu ne gëj naa am ndam te waa Medina ak waa Fass toujours ñu sas ko ak luñ ko mere mere su bëree dañuy ñëw duy stade ba fees del ne ci ginnaawam di ko pousser vers la victoire mu am yeneen i xale ñu ne ci ginnaawam di wane seen bopp ku ci mel ni Serigne njaay 2 euh, di wane boppam ñoom ñoom ne seen ñoom Pape Ndoye ne ci seen Forza ne ci ay dynamique de victoire moom muy leader bi mhm. <laughs> kon du jaadu mu daanu sorteem voilà défaite interdit moo tax combat la boo xamante ne nii euh, ñoom ñaar ñëpp dinañ ko fonk beneen bi dafa am beneen défi buy ñëw mhm. dañ doon wax arène bi mbër yu mag yaa koy feesal espoir ñëw di ko feesal del di xeex di bëre mhm. moo waral nit ñi ne mbër ñu mag ngi ñu dañuy calculer ku jàppoo ñaari yoon rek da ngay téye sa bopp moo tax yenn amateurs yi di daw combat VIP yi te loolu lépp dafa war a feeñ ci combat la seen bi. kon ñenn ñi ñu ne combat Balla Gaye Gris Bordeaux bi mooy may sens euh, VIP yi combat ci kanam. dañuy xeex bëre nit ñi bàyyi leen xel suñ ko deful mm-hmm. amateurs yi sax mën nañoo dem ba seen yenn combat yi danaan jaruñu dem ndax ndax dañuy calculer duñu bëree kon lu ñu war a wane la mm-hmm. ngir seen bopp lu ñu war a wane la ngir seen collègue ñi nga xam ne ñoo tuddee seen bopp ay VIP wala dañoo wane lu tax ñooy leen ay VIP lañu. ndax nit ñi ngi naan combat espoir yi moo ëpp xeex moo ëpp bëre ndax mbëri duñ calculer mhm. day ñëw rek joxe li ñu am waaw. comme ni nga ko waxee Balla mi ngi ci carte avance perte na benn bi moom Bombardier jëm ci diggante ma Gris Bordeaux Boy Niang mi ngi koy xaar Eumeu Sène mi ngi koy xaar Gris Bordeaux troisième tigre de Fass ñu ne ba léegi leeralagul li mu war a leeral te xale yi écrit Fass ñu ngi ñu ngi lukkeeku di ñëw kon combat bi moment bi ci la gën a diis ci ñoom ñaar. Balla naa la du bëgg a daanu ndax ñoom ñaar dañoo yem dañoo yër defi dañoo yem defi de waaw dañoo yem def moo tax buñ buñ ku ci ne boo bëre waalee loolu même ku daanu duñu la mere ndax di nga joxe li nga am yëpp mais buñ fi nee jàppoo tàggoo di calculer ba temps bi jeex non làmb dina leen mere nag làmb dina leen mere te danañ commencé nag li nit ñi doon wax naan mbër yu ndaw yi mbër yu mag yi VIP yi dañuy calculer du ñu bëre su boobaa nit ñi dañ leen koy wax te gis nañ nag lañ daan soxla. ci arène bi mbër yu ndaw yaa ngi koy def de duy stade ba mu fees dell ñëw xeex bëre te loolu nag la amateur soxla kii dagg bi loolu la soxla te lool lépp da leen di ñoom ñaar ñoom nag ñaar ñu ñaari ndaanaan yoo xamante ne nii dañuy mobiliser li leen di topp parce que seen combat rek moo feesaloon amitié su ko jàllee yeneen combat man nga am làmb ju mag mm-hmm. euh, nga wane li nga am rek ci estade bi wane ne am nga mbooloo mais duy amitié ba mu fees ci ñoom ñaar kon moo leen dañoo ci mbër yi dàq mobiliser mais amateur yi dafa am lu mu lay xaaree su dee ba lam non am lu muy xaar ci yow am na ci loo xam ne bu ko gisul ci yow rek day dem witi leneen ah. day dem witi leneen day bëgg nga indi doole bëri fulla ak fayda li ci des nga bokk ak sunu borom nag su ko gisatul day dem si porté ji keneen waaw. alors combat lu ko ci war. li ko ci war euh, jël ay matukaayam jéem a am ndam euh, buy xeex naan da contrôle. ci biir bëre it lu muy def na wóor lu muy def rek na ko assuré lu muy def na ko assuré bu mu indi maaman ba mu ëpp làmb day am wor su ma la jàppee dama lay duma dama lay daan deux minutes dama la ciy daan na doon waxu signature rek mais daam combat yoo xam ne nga war jël sa matukaay waroo koo ñàkk waaw. lan la war a éviter ci Gris Bordeaux. li mu war a éviter Gris Bordeaux mooy maa xeex ndax Gris moom ku ne xam ne ne xeex xeex da ko mën a ah, dafa mën a xeex atome la te it daa man a song gars yi dañ ne xeex bi rek giir dafa mën a song deux temps lay song doo mën a song bu lay jël si du la may dara waaw euh, kon moo lay wane ñoom ñaar dañ fa bëri lu ñu war a moytonte xam naa ne daal giriit loolu laa koy conseil ak lu ko bëtam bëtam may fitam du ko ko xañ te xam naa ne bëgg na combat bi ndax euh, combat bële gis naa ñuy daan di jooy euh, yàquñu nag mais jooy ndax da leen yàgg bégal ñu am yaakaar ci ne xëy na mën naa jeexal ñeenti combat yi premier sorte mu ñàkk ko te façon bi mu ko ñàkkee Bombardier gën a doon xale moo gën a doon mag mu magee Balla Gaye 10 ans ngeen bëri woon mu daan la nga dellu si di jël si revanche mu daanaat la loolu dafa métti waa géej waaye te xam naa ne Balla Gaye am na ci naqar woowu kon bu dellu si waatee giree ko mag tuuti mu ñàkkaat ci kaw giri kon dañ naan kii bu jëlee xale yi est-ce que dina ci am dara kon moo lay wane défi boobu dafa ne ci moom girit comme li ma la wax rek euh, mënoo soo daanoo ñu renouveler seen confiance ci yow ndax ndax yow même booy daanu da ngay xeex da ngay bëree mais waa écurie-am nag ak goxam dañoo soxla ndam te xam naa ne moom moo leen ko gën a bëgg moo leen ko gën a bëgg combat la boo xamante ni daal ñoom ñëpp bu joxee lu ñu am di nga gis xeex di nga gis bëre. séntu ko mu diire comme mbéy ni mu diire waaw waaw bu buñ joxee c'est am na nu muy am na nu muy yéexee amateurs yi nañ leen mere mais mën naa diire nag te mu neex waaw làmb léeg-léeg mu diire neex ah mën na diire neex mu am xeex am bëre ba amateurs yi sax dañ naan. léeg-léeg mbër yi joxe ba duñ bëgg sax ko daanu duñ bëgg ku daanu léeg-léeg combat neex ñu xeex bëre ba yow mi support ak naan ñaar ñi daal bëgguma kenn daanu ci moo tax bu ñu joxee même bu yàggee mën naa neex. ngir mu ne Balla mënut a bëre cinq minutes. waa loolu nag ça dépend ci Balla moo ci tontu ndax da ko wéer rek ci ne état daw forme bi mu indi physiquement parewul loolu tax mu wax loolu. looloo tax mu wax ko loolu loolu nag Balla moo ciy tontoog préparation Gris ñaan yàlla combat bi taxaw mu ne bu bi taxawee dina ko dóor mu daanu ndax jàpp ne combat bi war na mën a am kaw kawoo ku ci ne mën ngaa kawate sa morom xale bu ndaw sax am na am na point yu sensible yoo xam ne xale sax bu la fa cofee mën ngaa daanu kawoo moom doo ko doo ko écarté ci benn bëre door nag benn bëre door bëre door bu ne kaw mën na ci am waaw bëre dóor bu ne kawoo mën na ci am ñoom ku ci perte combat bi lu mën a wàññi sa carrière non day métti ci ñoom ñaar ñëpp waaw duñ génn làmb ji nag Balla mi ngi ki avance am am na ay xale yu rêvé ndax ñoom it duñ n'importe qui ci làmb ah. dañoo def lu ne moo tax ñu bëri turandoo ci làmb ji xale yi dañoo bëgg a bëre ñoom bëre mel ni ñoom parce que buur bu mag bu ne buur bu ndaw la fiy jëlee fi mu ne tey boo daanoo xale yi dañ lay jël ne la may ñu chance Balla mu daanoo mu daanoo day ko ne ndax dafa am ay contrat yu ne ci kanamam c'est que bu daanoo day gën a métti daanu ci bombardier daanu ci Gris Bordeaux di waajal Eumeu Sène wala Boy lolou da fay metti préparation bu metti ci la jëm Gris Bordeaux it euh, xalé yang fi bëgg ba rek mom xalé fi bëgg mu may len chance bu fa daanu day noo na ginaaw ba euh, sa sortie bi ñak nga ko may ñu chance lolou rek moy lamb ci ñom ñaar lolou di conseil li ma di conseil moy ku ci ne jël say matukaay bañ sa adversaire xamne ne kenn jëlul sa avance pour daanu baña maye dara te luñ la may nga exploiter ko. que le meilleur. ndewoy ndewoy ndewoy sey maane ndewoy